ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp si seen tur ak seen sant di leen dalal fii sa kër gi ñu tuddee Cheikh Anta Diop muy Ifan Cheikh Anta Diop di si am mbégte bu mag na comme ni ko kay ko waxee rek di ko def euh, fii si département bi ñuy tuddee bi ñu dëppee dëppee làmbiñu réew mi ak euh, mbatit département langue et civilisation ak laboratoire linguistique donc ndaje yi dañ koy faral di def waaye nag dañ koy def si làkki réew mi làmmiñu réew mi ak lépp lu jëm si war lu wër làmmiñu réew mi bi ndaje tey bii nag ndajeeb ndajeeb euh, ladab la li ñu koy waxee ladab rencontre littéraire bi nga xamee ni tey moom dañ si euh, waxtaane ak sottante xalaat si téere bii Serigne Ousmane Lo bind tudde ko lii yow du man li yow du man nag bi junj lu baree baree bare di lu bare la xóot ñu war ko tey waxtaan waxtaan si ñu waxtaan waxtaan si muy téere boo xamee ni dafay euh, layal ceddo dafa indi dundu euh, dundu ceddo moom lay moom lay indi fii loolu la ko tudde ah, mu siy wax nu ñu delloo si ñu li ñu war a delloo si cosaan ak ñu cosaan ak am amee solo ak sunu valeur traditionnelle yi cosaan li ñu li ñu lu ñu lu ñu mën a euh, jikko yu rafet yi ñu amoon si cosaan ak ni cosaan mën a yare loolu lay euh, wax si si biir téere bii nii di si wane wenn nit koo xam ne si cosaan lañ ko yare nga xamne bokk la dara yorun tuba bokk la dara yorun arab te tewul genn na ci ba ñewul ñewul dara dara dara ci ay morom Souleymane Niang mi nga xamé ni mi ngi dana ko présenter légui mom mo ci dugg ci livre bi tenkal ñuko wax ñu lan lañ ci wax suñu paré ñu discuter ci mind mek ci ci ci ci ci ci ah li ñu indi ci ci biir téré bi deug deug donc euh, lool lañ ci lool lañ bëggoon introduire légui nak euh, ki kay bind livre bi moy Serigne Ousmane Serigne Ousmane Lomi nga xamé ni mom bind kat la bu mag bokk na aussi ci ay groupe whatsapp yu bare bare nga xamé ni tout temps mi ngi moy animer groupe bi di ci indi ay xam-xam yu am mana yu am solo mo tax bu mu livre nag il faut nga ñëw ifa nga ñëw ñu discuter ka ñu wax waxtaan wax sottante xalaat nga wax ñu lo sa xalaat ñu amul ñu wer ñëw ñu pour wéranté ñëw ñu pour dañu dañuy ñëw pour ku nek do ku ne doole sa morom xam-xam nga ñu sottante akhla xalaat bu nga xamé ku ci nek boy dem di fi jëlé dara loolu moñ fi tax a tax a toog muy euh, communicateur xam nga dañ koy waxé wax kat bu mag nekk si rajo bu ñuy wax euh, réseau administrateur réseau rajo ah mu si admi muy administrateur réseau bi. moom moo bind téere bi tey moom nañuy euh, moom nañuy dalal fii tey di si gër di ko gërëm bu baax a baax si lu mu nangu ñëw fii i IFAN. ki koy présenté moom mooy euh, Souleymane Niang Souleymane Niang mi ngi nekk université Bambey foofu lay liggéeyee moom mooy directeur des programmes centre de ressources foofu lay liggéey def naa yéen édité tamit livre bi waroon na moom moo ko préfacé. moom moo moom mooy indi tënk wax ci nekk si livre bi. jërëjëf kon moo ñu déglu sëriñ euh, Souleymane. mbokk yi mbaa jàmm ngeen am ñoo ngi am dégg lool ci euh, di teew fii ci barab bi euh, di ci am mbégte ndax fan ci fànn yu bari am ci mbégte ndax man université Cheikh Anta Diop moo ma defar fii laa jàngee daa mbégte nag am ku seede loolu ndax daa bokk ci ñama jàngal muy sama kilifa sëñ ma maam Thierno Cissé noo ngi lay nuyu baax di la jox sa gëdd di la jox sa cër di am mbégte lool ci sa teewaay fii waaye itam di am mbégte lool ci barab bi ñuy defee yëf yi ndax bu dee sunum njàng may na nu àgg fenn fi mbindub Mbaye Cheikh Anta tax na nu xàmmee lu bari ci sunu bopp ba fonk sunu bopp ba yëg ne amut leen loo xam ne war nañ koo mën a jëggaani te newutoon fii amaana day réer wala mu làqu ci ñenn ñi waaye bees ci bàyyee xel rek gisees ko ci anam yu gaaw a gaaw kon loolu itam mbégte la waaye di am mbégte itam ci euh, tànn gi ma bàyyi Ousmane loo tànn ci ma ajar téere bi nga xam ne moo ko bind loolu ma ci am mbégte lool ndax Baye Ousmane da di sans mag waaye day tam sama wóllëre nekk nit ku ma fonk lool bokk ci ñi nga xam ne sañ naa ne ñoo ma ñemeloo wax dëgg yàlla ah, loolu dam ciy am mbégte di am mbégte nag ci wax ci téere bi nga xam ne ba ma koy gis boobu mu ngi nekkoon ci ay xët yu fasantikoo maanaam moolo guñ ko woon waaye ba ma yëreet nam ko tuddee rek muy lii yow di man laa am yéene xam li ci biir donte xam naa ne bu ñu yemoon ci lii yow di man rek dina am lu bari luñ ci mën a jàng te itam téere bi na mu tëggoo noonu ci tur wi noonu la tëggoo ci biir ci wàllu solo ndax boo xoolee bu ne lii yow di man ni ma ko waxee ci gàndeeru gi mënoon naa def lii man di yow waaye bu boobaa dafay nuru jumaam maanaam day mel ni kuy jéem mu wane boppam ci kaw ñeneen te ak màgg tekkiwul ni danga war a nappaaje ñeneen ñi moo tax mu jiital lii yow du man dékkërle ñaari jëm jenn jëmm ji di yow jeneen ji di man waaye kuy yow ak kuy man loolu la téere bi di indi fii muy wane ne dafa am kook dafa am mbatiitu boppam am jaar-jaari boppam am gisiinu boppam waaye am ñoñ dañoo taxaw ci ne dinañ ko loofoon ci anam yañ ko bëgge lii yow nag mooy ñoo ñee bëgg a def lool kon buñ nee li ci wolof ndéem ay saa ak ñooñ dañuy yëngu ci làkk wi la ñoo fi ne dinañ xam ne lu muy junj mooy lëf lëf loolu nag mun naa nekk jëmm mun naa nekk der mun naa nekk mbatiitam mën naa nekk ñu muy gisee àdduna mën naa nekk am njàngam waaye loolu lépp la muy am am solo ca moom dees na ko nangul waaye nangul ko ko tekkiwul ni loolu dafa war firndeel ni loolu mooy limay def man ki ma doon kon téere bi ci tur wi rekk jàngale na boppam kon nit ki dina nekk ci kiw moo xam ne day am la ko war la ko ca war nag moom faw mu xam boppam ngir mën koo doxal ngir mën koo doxe kookooy man ci téere bi li ciy gën a neexati ci téere bi mooy ni dafa dëppoo mbatiitu nit ku ñuul laay wax ndax boo tàmbalee téere bi ca njalbeen ca xët yi ngay njëkk a tijji lañ ca njëkk a wax ca kay nettali nettalikat bi dafa ne bu ma dama xëy teg sama tànk ci suuf xamne ne ngi ci jamm baatu jamm jooju am solo lol motax sax ma tambale ci mbokk yi ba jamm ngeena ndax bari na lol nan ñu ko jangale nun depo wut ak na mu demee ndax lenn li gis-gisu ka lay jàngal la waye du depo deug deug xam-xam moy li yeen borom xam-xam yi ah, li ngeen di woyé idéologie ak les faits ba ci bu ñuy nuyoo ñu bàyyi sunu mbaa jàmm nga uti leneen ñeneen ñi jël baatu comment tu vas na def te wolof du ñu nuyoo ñenn ñi ñëw ne la da war a nuyoo ci asalaamaaleykum ndax moo gën ci nuyoo ndax wax jee gën ci nuyooy yi wala takk ba ñu takk ca salaamaaleykum moo am moo am solo mooy jàmm jooju nga yéene nit ki nga jàkkaarloo. ma xam ne kon ñun sunu nuyoo amut lenn loo xam ne jàngal nañu ko ci nañu war a jëflante ak nit ku ñuul te nit ku ñuul jàmm ko jik ndax ca jàmm la sosoo moo tax téere bi tàmbalee ci jàmm boo xoolee jokkalante gi ci jëkk ci diggante way teew yi ci téere bi ci ak nuyoo la tàmbale te nuyoo ci nun bu yàggee ba yàgg dañ koy tuddee jàmm sante mu tëggoo ci baatu jàmm lu tax jàmm nag am solo munta ñàkk ñu tuddee ko nag ñu jaaree ko foofu ndax barab bi ñu nekk ñiy yëngu ci wàllu égyptologie xam nañ tuuti ci li ñuy wax semataaw yi maanaam buñ ko doon misaal mooy li ñuy jàngale ni mooy wundal euh, boolook yaari réew yi nga xam ne ñoo tënk masiré mooy Égypte bu njëkk ba muy am ñen ñu koy wax l'union des deux terres muy semata wi waye bo jangé mandarga ya fa né da ngay gis ni mi ngi jangalé ak bolo ak benno waye baat bako teunk ci buñu ñu ko delloowee ci dégg gamé la ak jàmm ndax jàmm jooju moy yahu min te dinañ ko fekk ci afrique ci penko afrique boo demee ay Kenya ñoom seen nañ fa fekk cosaanal baat bi ak solos baat bi ci ujima bu ñu demee ba Afrique du Sud South Africa nga fekk ujaama bu ñu jaaraatee dellu si Masiré fekk fa jàmm jaar kee ñame na nga am ci jàmm nga jaar ñaame am ci jàmm nga jaar Côte d'Ivoire am fa ajame nga ñëw Dakar séer nga ñëw Sénégal séeréer bi ne jàmm pël bi ne jàmm nga ñëw am jàmm ñaajo am jàmm gën te jàmm gën bokk ci barab yi sell yi nga xam ne tudd nañ leen fii ci téere bi kon jàmm dafa am solo moo tax ma tijjee waxtaan wi ngir dëppale ko ak li nga xam ne moom la téere bi indi ci baatu jàmm loolu muy menn mbir moo xam ne bëggoon nañ ko tàmbalee ci waxtaan wi aajare ko téere bi waaye téere bi dafa indi ay tur indi na gën jaa néew juróom fukki tur ak fanweer ak juróom-ñaar ci ma jot a karmat tur yooyu yëpp amut wenn wu ci génn réew mi lu dul siidi turu siidi dong moo ci génn réew la moo tax nag ma jukki ci tur woowu nga xam ne moo ci génn réew mi moom dafa di aji teew joo xam ne ci biir nettali bi boo xoolee seede dong la taxawee ci ci yëf yi seede la ci toog nga gis ni kon xaw ma ndegam loolu la ci aji bind bi ji eh, amoon yéene def waaye loolu mooy taxawaayam ndax siidi moom moo nekkoon ko doon xamle yennat yi ca ba ñu nekkee ci saxaar nga leen doon jëlee dëkk ba doon leen indi taax kon siidi dafay mat seede ndax am na ci yooy xew na ci biir téere bi te siidee ko mën a leeral te ku fekke ko ko mën a nett waaw tax sax ñu naan tung ne du teew ñuy nattaan kon turu siidi rekk rek moom moo ci génn ci tur yi ñu waaye dafa am ay tur yooy dañoo xoromu lool ci biir xam naa dinaa ci dellu ci yenn ci turi rek waaye ma bëggoon a taxaw ci baatu saxaar ndax bari na lool ñu ngi koy dégg ci caabal gi am ñuy am yéeney jàngale waaye ci njuumte la ñuy waxe yenn yi ndax dañ naan dafa am saxaar gi ak saxaar si ñu bare nga koy jàngale nag waaye wax dëgg yàlla bu dee ci wolof rek la ñuy wax demewut noonu sahar gi mo am ak ah, sahar si sahar si amul sahar mo am kon sahar gi mooy waruwaay wi war buñuy tukki juge barab sangam di dem barab benen barab sahar nak moy lay genné ci buñu défé ciuray ak ñom seen loolu moy sahar mu bëggon ci taxaw waye ci sahar gi nga xamné nak mom jot nañ ko war jot nañ ko war ci ah, téré bi dafa am yu bari yu ci jot a xew ci jàngale nu ñu war a dundee ci suñ biir ku ci nekk am nga gëdd bopp ah, gëdd goo xam ne suñ borom moo la ko jox waaye waa réew mi moo la ko ñoo la ko jox muy ki nga xam ne mooy luññutu tont yi maanaam li ñuy wax paas ki koy luññutu waaye ak ka ci jàppale mu di alkaati mu nekk waxtaan woo xam ne dafa am solo lool ci ne nit ki donte dénk nga ko day baax ngay teg kenn ci wetam mu koy aar. di leen sant ñi fi ñëw ñëpp bokk yi ñoo ci bari yàgg naa leen a dégg. maa ngi sant wala fi fi nekk yëpp sama doom ju baax ji ak ñëpp rek euh, sama kii mooy chef station rajo benn ci rajo yi nga xam ni moom la la ñu jiite euh, waaye technicien la boole ci. kon danoo ànd noonu rek kon mënuma woon a tàmbali te santuma leen professeur maa ngi lay sant ndax professeur sama professeur moom sant la rek laay mën <laughs> noonu laay man maa ngi leen di sant moom sëñ waat maa ngi leen di sant bu baax a baax ñëpp rek gis naa leen ah, mënumaa tàmbali te tàmbalewuma loolu oh, ku mel ni Guilhem maa ngi koy ah, dégg lu baree bare bari ci di koy sant Euh, léeg-léeg ñu wax ko ni ñu mel ci tubaab nga mel ci wolof jarul ñuy santante loo xam ci wolof nun xam nañ ko ci tubaab tubaab bi nga doon woonu santul dun la sant waaye ndokk yàlla ba nga xamee ne li nu war war na la looloo tax su fekkoon ñépp ni mel na ni yow du ma wax ni li yow du man waaye gis nga ko noonu la demee bëgguma delloo bëggumaa delloo li nu ma joxoon ndax li ñu ma loofoone ni nu loofoone ba nu mel nii <clears throat> ba bu nuy nuyoo xamuñu nu nuy nuyoo bonjour salaamualeykum ak leneen mbaleen jire haay dañ koy wax léeg-léeg bu nuy dem ñu ok bu nuy dem caaw caaw li ñu def ba nu xamatuñu loolu ak a metti suñ ko bëggee nangu ci nan nako joxe won day doy war lolo tax mo wax len li yow du man man na jaar aw yoon wenen bo xamni ni dana ko nang ba deñ ci lepp ki fi la jangé ni ñepp amin li jaase ni ñepp yaro ni ñepp juddo dakar ki magge dakar musta genné dakar dégg ngeen ko wax na ñaar fukki euh, simili dugalu ci benn baat bo xamni bi dekk fi jamono na koo dëkki xaw ma lu tax mu sol yi di niroog euh, gormet waaye mënoon na koo sole neneen mele ko neneen te fii la jóge mën naa ne loolu li tax day feeñ ci téere bi liy feeñ ci téere bi mooy feeñoon ci li ma leen nettali léegi fii ba mu fi mujjee ñëw ba mu fi mujjee ñëw yalla xamna na ko ma bar la fi tabax fi ay amphithéâtre dem sama yoon ñu japp ne lepp tay bima fi dikaté ma ngi waxtaane ci téré ci kay bi gëna mag ndok baye bo mu yam fi day na mën naa kay ñun ceddo yu lu ñu bëgg man nañ ko nek xam nga liko waral ci téré bi dana ci feñ moy dafa am dabe ak jote dafa am dabe ak jote ki nga dàq ngay jot te nun noo daq kenn bay jot kenn suñu yoon nekkul ci kursu jàmbur wala boog rawanteeb jàmbur ngeen baal ma ci baat waaye mën na noo dabe dabe mooy kee day dem aw yoonam ngay dem saw yoon ngeen bokk yoon wi bu la njëkkee jóg ak jëkkul jóg nga dox ba dab bàyyi woo xel ni moom mu ngi fi waaye yéen a bokk fu ngeen jëm te moom ma ngay dem te yow it yaa ngay dem yéen a bokk fu ngeen jëm xamoo woon sax ni jóg na sa yoon nekkul ci moom saw doxin ngay doxe aw doxinam lay doxe nga fexe ba dab ko ci yoon wi bokkul ak jote nga xam ni danga xam ni mu ngi fi nga di koy dàq ba jot ko te nun li nu li nga xam ni moo nu dëyal dëgg dëgg dëgg dëgg te moonu téye dëgg dëgg dëgg mooy danoo jàpp ni ñi ci des ñoonu raw ba nun dañ leen a war a dab ñun dañ leen a war a dab naa ngi taxaw foofu tey nuyu sama mbokk sama xarit dëgg dëgg dëgg sama xaritu xool Babacar Mbaye Ndaak sama xaritu xool sama mbokk dëgg dëgg moom kay dangaa waroon ni ñëw toog fii ci sama ñëwal fi ngir yalla dimbali ma rek dimbali ma rek ngir yalla ñu tok fi ci sama wet day day tax ma ma ma ma ma ñame day tax ma ñame ndax buma yaxé sax mom dana ko defal mom ndax deug deug ama ko waroon jox sax mu aajar téré bi mom. xamna naa jang na ko lii daal laa bëggoon a leeral nu xam ne téere bi moom li mu doon dëgg dëgg dëgg mooy ab nettali la euh, lamin mbaay moo ma jox aw yoon ca téereem bu mag ba moo ma jox aw yoon moom laa njëkk jàng yër ci téere wolof lamin mbaay muy guddi mbooyo mu daw ci sama bopp bi lool lool lool mbindin wi ma ma ma jaar ci <clears throat> nettali bi waaye sama yoon laa jaar waaye moom moo ma xoos jërëjëf Lamine mu ngi lay sant bu baax jaar ci nettali loo xam ne lii ak dund la dund goo xam ne gii mën naa jóge fii ci dara dara dara jaar ci yoonu ngor wi ànd ak dongay daara nag ak i tubaab dem ba ci seenum réew dikkaat te du tax nga soppi nekkaat fi nekk ak say maam ak say ndey ak say baay ci dund goo xam ne gii dangaa nekk ak ñoom ñu yar leen ba nga màgg yorum xel te doonte jànguloo ci jàngu yi nga xam ne danoo jàpp ni ku ca jàngul doo nit waxuma nag ni dama doon jàngale waaye dama doon nettali ak dund rekk dund go ki ko dundu kat nek man na dundu ci fune ne ba am lu ne te jaarul fi jaar dudul jaarinu boppam wi nga xamni ni mag ña ñoo ko doon jàngale ndeke ne man na nek kay man mi bindu tere bi rek tay ji sama bisub tay bi wanene ne ni man na ne li dong xamni yi umay leralé ak Euh, boo xam ne bii euh, tuub li ñuy tuubloo te nun defunu lu ñaaw lu nu war a tuube li ñuy tuubloo te nun nekkunu ci lu nu war a tuube donte du bunt yoo xam ne yi dama koy joxeñ naan lii a bunt la waaye jàpp naa ne bunt buñ war a taxaw la ndax ku ku jàng téere ba ci xëtu ñaar fukk ak juróom-ñett mën naa am boo ci taxawloo da nga xam loolu boo demee ci xëtu fanweer ak ñatt da nga ci gis ni euh, sey kat ab kat taxaway fi ci mag ñi nga daan sey nan daan euh ab wesar la rek nonu waye du buntu bo xamni bi waye bo ci ba défé xel da nga ko gis bo démé ba ci xatu ñeen fukk ak juroom da nga gis ni ay tour yu sel la nga fa leen ni nun amunu lu sel ndax dañu ko wax lu bari mën naa jag te du jaadu mën naa jag jaadu te du sell mën naa jag jaadu sel te du rafet mën naa jag jaadu rafet sel te du du war yooyu yëpp mën naa am te nun xàmmeewuñu loolu nag mënees na koo xàmmee ci téere bi mën na xàmmee lu bokk lu nuróoy ànd baax na bu nee baax na lu tax mu baax ndax yooyu yëpp dikk na ndax yëpp dikk na ndax nun kat danoo jàpp ni dana baax ci nii de du mën a baax ndax ñun buñ leen dabee ci seeni jikko du baax buñ leen dabee ci suñuy jikko dong la leen doon a mën a baax te suñuy jikko mooy lan ndax lim nañ ko ndax mën nañ koo xam ndax fàttewuñu ko ndax xamuñu ko ndax teguñu ko sax ci yëfi keneen loolu mbindin mi dina ko wan ni ñu gisee mbindin mi buñ ci dikkee mooy nun mbindin wi du lu nu diiŋat ndax ñi fi jëkk a jaar bu nu fi jaarul woon du nu fi fekk lenn sant leen dong ci boo seete xët wi nekk ci jëkk ci téere bi loolu lañ ciy waxtaan mbindin wi ak njukkal ñi nga xam ni ñoo yoroon mbind lii lañ ci wax bala ñoo dugg foofu leeral tuuti ci mbindin wi ma jëfandikoo ci téere bi mbind mi ma jëfandikoo ci téere bi day wane aw yoon ci dëppale gees war a dëppale làkk wi ak ki ndiktoom xam-xam feeñ na ba tax mbind mi wara door dox ngir gën a wolof te jàpp naa amagun mbind mu gën a méngoo ni wolof tëdde mbind mi ci téere te wa kippaangoog wolof wolof feeñal ko kippaangoog wolof wolof mooy kippaango la goog kii mooy jëwriñ seen Fallou Cissé moo ubbi woon ci am njàngaleem ñu nekk ca di wolof da di làkk wow menn riir mën naa soppi solos baat mbaa kàdduk lëm kàngam ya doon tëral mbind mi seetlu woon nañu ko waaye indaale wuñu woon indaale wuñu mbooleem li lakk wi làmboo ndeem làkk wi tëddagul nag ña jógoon di wëri ya ñu bàyyi woon ginnaaw indaale nañu yoy ku xool seen ceefaali <coughs> nette ko ci xam-xamu ndégtu dana gis ni mënuñoo tàbbi ci këru wolof dinañ ci doy niiral li tudd ab lomb am na lu ñuy tudde lomb ci téere bi bees jëlee santu moomeel wi di sax daanaka wépp sant wu pege daanaka wépp sant pege wees di door rek mu jur beneen baat niki sa boo ci tegee ba muy sab sa boo ca tegee wa muy saw sa boo ca tegee yë muy say bu lomb dikkul doo xàmmee baatu ñum ak sant moomeel niral gii ak yeneen yu feeñe ci ay luñutu yees mën layal moonu ci mbind nii def ko ma def ko mu di sama se, ci lak yi ndax mu jëm kanam waye du te ni ma ko du fippu it fippuwuma te it du dal kangam yi jëkk a mbind mi déedéet du doyadal leen lii ci mbind mi ndimbalul sama jëwriñ ji ngir mu leral nu xamni ni mbindin wi mo bind ni du ñak du fetterlu du ñàkk doylo lima fi fek du ñàkk itam du du jema euh, euh, def dara wala wax dara wala teggi ndigal yi nga xamni mom la nguur gi teural ma bëgg bind waye sama njañ sa la ni ko waxe ak ci euh, ak sama yok bo xamni gi man itam bëgg na ko yok ci turu Kippaangoog wolof wolof